mbootaayu réew yi Europe yi ñu koy duppee Union européenne bokk na si ñuy gën a jàppale Sénégal si lépp lu jëm si dem ak dikk bi. loolu ànd ak bëgg-bëggu président Macky Sall si biir plan Sénégal émergent nga xamante ne dañuy bëgg a defar ay tali fépp si biir Sénégal. ay tali ak ay pont yu mucc ayib ñu ngi koy tabax si diiwaan yu bëre loolu yëpp ngir nit ñi mën a dem dikk ñoom ak seeni alal. ñu mel ni Union européenne ñoom. dugal nañ seen loxo bu baax ci mbir bile ndax xam nañu ni Sénégal fu mu jëm foofoo gën. nous sommes depuis bien longtemps un partenaire. Euh, yàgg na nag boobu ak léegi bi ñu tàmbalee di lëkkaloo ak Sénégal ci bëgg-bëggam bi di doxal réew mi mu ñeel émergence bokk na nag ci li gën a su ñuy lëkkaloo muy liggéey yi ñuy amal lépp ngir doxal wàllu yoon yi. union européenne nag ci ab sommet bu mu amaloon bu yàggul dara ci digganteem ak union africaine daal dinay taxawal li ñuy woowee global gateway muy ab initiative boo xam ni Afrique dina ci profiter ci lu tolloog téeméer ak juróom fukki milliards ci ay euro jaare ko ci ay financement yu soxal ni nga xam ne ñoo di public bi ak itam privé bi lépp jëm ci ay liggéey yu ñeel dem beeg dikk bi projet bii di Pago Trans nag soobu nañ ci bu baax lépp ngir yokk kaarange yoon yi na xeex lii nga xam ne moo di surcharge à l'essieu bu ko defee ñu mën a gën a sàmm suñuy tali je voudrais d'abord. Euh, man nag euh, lu rafetlu la mu soxal suñu lëkkaloo ak commission bu union européenne ndax itam programme bi nga xam ne moom moo ñu boole dafa doon lu am solo rawatina ci li nga xam ne nag moom moo di secteur bu transport. lu ni mel dina ko gën a ñoŋal ci loolu itam ci la jamono ñuy woyal aw plan de communication waaye itam assistance technique ci loolu ba tey ñu daal di koy tënk ci eh, ñeenti thématique bokk na ci lépp lu soxal wàllu eh, karaange ci. dem ak dikk mun ñeel sécurité routière bi ak itam li nga xam ne euh, moom moo di euh, surcharge à l'essieu ba ci sax li nga xam ne euh, moom moo di wàllu pollution ndax itam ku nekk xam na ne am na ay njeexital ci li nga xam ne moom moo di dunu ko doomi aadama leneen itam loo xamante ni mënees na ko tënk mu di taxawaayu jigéen ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu dem dikk maanaam secteur bu transport. si programme bu ñuy woowee dixième FED Union européenne génne na ay koppar yu am solo. ngir ñu mën a defaraat tali bi nga xamante ne mooy jóge saint luy dem ba Rosso jaaree Richard Toll mu doon téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre koppar yu ñu ko war a tabaxee toll si ñaar fukk ak juróomi milliards. Union européenne financé na itam liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def si route nationale numéro un mu doon Kaolack Mbirkilaan Mbirkilaan Koungheul ak Koungheul Tambacounda ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi kilomètre la ñuy tabax ñu war si dugal juróom fukki milliards ak ñett si sunu koppar. fii si Rosso Sénégal ñu ngi fiy tabax pont bi nga xamante ne moo gën a mucc ayib si Afrique féete soowu jant bi mu toll si junni ak juróom benn téeméeri mètre si guddaay yaatuwaay bi ñu xayma ko si juróom-ñaari mètre ak li si topp ñu war ko tabax diggante Sénégal ak Mauritanie nga xamante ne dex bi moo leen seq Union européenne ànd si ak Banque africaine bu développement ak Banque européenne d'investissement ñooy génnee koppar yi nga xamante ne moom la ñu war a def si liggéey bi le gannaaw pont bu ñuy tabax am na yeneen ni jumtukaay yi nga xamante ne dana am jëriñ lool si askan bi yu mel ni ay centre de santé ay gare routière ak ay marché ñu war ko boole si projet bile le chauffeurs yi ak commerçant yi ñi ngi rafet lu lool li nga xamante ne mooy waaj am fii si Rosso ndax loolu dana tax ba seen liggéey gën a gaaw gën a jàppandi financement boobu de wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu parce que ku daan jàll fii baat bala ngay jàll def fi deux heures de temps am oto yoo xam sax fi la fanaan soo demee ba am possibilité rek ñëw rek def sa formalité jàll vraiment loolu ay ata a ngi nii ña ngi koy séenu waaye mënuñu ko wonaam loolu moom loo am avantage la si noonu. waaw pont bi moom li ñu ko euh, comme ni ko àdduna bi yëpp rafetloo rek ndax euh, nit ñi dinañu presque boo xoolee àdduna bi yëpp dañuy fii day métti ak baag yi ak gaal yi yooyu pon bi moo leen di gënal. ndax euh, donte que moom mooy moom mooy njëriñu askan bi te bu fekkee duñu wax ay ay ay ay citoyen lañu ñu war a topp luy njëriñ askan bi ñëpp ànd si. moi j'apprécie projet. du ma def lu dul di rafetlu euh, projet euh, bu ni mel ndax itam dina mën a tax lépp lu soxal wàllu dem ak dikk ci xal wi yomb lool dootul tàggate mbéyti lépp lu soxol itam wàllu koom foog naa ne dina gën a ñoŋ ci gox bi. ca Casamance entreprise yi nga xam ne ñoom la tànn ngir ñu def liggéey bi diggante Sénoba Ziguinchor ak Mpaak ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe ba lii antu am na liggéey bi nga xamante ne sumb nañ ko itam muy yoon bi nga xamante ne mooy dugg si biir Kalunaay mu doon projet bu am solo ca Casamance nga xam ni pont bi ñu tabax diggante Sénégal ak Gambie tey ji gën a yombal dem ak dikk bi projet bi itam Union européenne ànd na si ak Banque africaine de développement ak banque européenne d'investissement ñuy gunge nguuru Sénégal ngir liggéey yi mën a antu tali seno ba Ompag day wax dëgg yàlla ni ñu ko gisee kontaan nañ ci ndax euh, wax dëgg yàlla tali bi xatoon na pax na te comme gis nañ liggéey bi daal ni ñuy liggéey daal ñiy liggéey ñu ñaanal leen yàlla ñu gaaw mu pare. bon ça fait yàgg na lool ñu dem xaal financement yi nu mel ngir nag ñu amal fi ay tali fii ci Casamance waaye li ñu bëgg moo nekk mu daal di wër ci Casamance bi yëpp ndax nag dina nekk lu baax ci ñun. te tali bi dafa xat waa dëgg yàlla depuis seen waa bi fii moom tali dafa xat loolu la ñaan yàlla tali yaatu bu boobaa ku nekk invité accident yi kenn ñaanul yàlla loolu am dogal yàlla la. Euh, la constitution de la Russie. aw gént la woo xamante ni nag ci la jamono mujj naa nekk dëgg ndax itam askan wi yàgg nañoo xaar la lu ni mel fii ci région bu Casamance ak itam li ko wër. loolu moom c'est bon la population wax yàlla am na solo. la construction de la route euh, des Kaluna euh, defar gi nga xam ne moom la ñuy defar tali ñëw na ci waxtoom bu baax a baax ndax nag doon ko soxla woon rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk askan wi doon ko dem xaar bu yàgg lool. lii yëpp dal na xel bu ñu jógee si Pagotrans nga xamante ne dafa nekk nekk programme buy tax ñu gën a mën a ñaax ñii di liggéey ci transport ak di jëfandikoo jumtukaay yi nga xamante ne nguur gi mi ngi koy defar lii ñuy def ci yoon bi jógee Saint-Louis Richard Toll dem ba Rosso yoon bi ñuy tabax diggante Kaolack ak Tambacounda pont Rosso bile ak li nga xamante ne moo di yoon bi jógee Sénoba ca Gambie jaar Ziguinchor ca Casamance egg ba Mpaak wetu Guinée Bissau loolu dana gën a dëgëral diggante Union européenne am nguuru Sénégal ndax ñoom ñi le seen ànd rafet na te tegu si ay anam yu mucc ayib. avec euh, l'union européenne jàpp naa ni aw lëkkaloo la bu yàgg woo xamante ni nag boobaak léegi toll na ci ay at lépp lu soxal itam wàllu infrastructure yi nag doonul loo xamante ni union européenne da ci rek daal di euh, tënku waaye bëgg-bëgg bi nga xam ne nag njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall daal na koy am bokk na ci euh, taxawal lu ni mel ci loole itam foog naa ni union européenne dina ko gunge ci kanam mu soxol lépp lu ñeel wàllu. xàll yi tali yi ak yeneen yu ni xeetoo rawatina nag ci li nga xam ne ba moo di axes régionaux yi lu ni mel dina mën a tax lépp lu euh, soxal wàllu dem ak dikk gën a yomb ci suñu réew. davantage euh, davantage le pays. Union européenne ak Sénégal ànd lëkkaloo saa su ngir indi koom ci suñu réew.